nañ fi ay régime yu bëri gars yi dañuy dawal deux ans presque ci troisième année bi ngay doog a gis opposition bi di agité wu mais bii opposition bi dafa teel a agité trop ba pare nag teel a commencé critiquer ci koo xam ne installé woogul sax ndax wax na ko nomination ñu ngi dox ba tey waaw xam nga du ma ko tuddee sax opposition ñii sonkoo sonkoolu la du opposition non non non gisaguma opposition imaam lan la imaam ñii sonkoo sonkoolu la di wut benn tracé bu niroog bu sonkoo waa ji da nga jàpp ne dafa ne laye ci asamaan wàcc te samb duñ ko mës a réussir. ah mais c'est pas damay wax de mel ni ku ku dul jël matuwaay quoi. Mhm. Mhm. non non. Mhm. non non maanaam nekkuma sàggan ba ma ne non ñii duñu dara. maanaam nekkuma benn équipe buy xeet xeeb adversaire am wala benn mbër boog war a liggéey euh, bëre benn mbër naan kii dinaa ko rey. mais ñoom c'est-à-dire ci plan yépp maa ngi dégg mon ami euh, Cheikh euh, kii kii Touré. analyste boobu Ousmane Touré. damaa wuteeg moom nag bi yoon ci xalaat. mun na mii analyse am daf may neex mais nee na euh, daanaka bi ñu bàyyee gars yi cuune nguur gi la quoi analyse la quoi parce que dafa dafa njëkk reconnaître ne gars yi justice la ñu wax mhm. doxal nañu droit bàyyi leen pour wane ne rupture am na mhm. mais li ko metti mooy bëggul woon gars yi ñu bàyyi leen ñu dem xam nga keroog yaa ngi toog fii rek nga ne bu mhm. boo sañoon duñ jàpp saawaay ma ma ma ne la même yow ya laamiroog yow ci wàllu boobu moo sañoon dañ koy bàyyi mu souffrir ci biti souffrance ci moo gën a metti moom muy souffrir ci biir kaso bi mu bugaan nga bàyyi ko mu souffrir ci biti moo gën a metti moom nga dugal kaso parce que kaso dina ko may bës tuuti sax mu mel ni da ko jaay doole du ñu mës réussir xam nga lu tax damay comparer ñaari jëmm yi rek pour ngeen xam ñanay xeex. ñanay waaw maanaam xam nga dafa loo xam ne da koy xam maanaam ñaar lanay xeex ñaar ñaari force ñooy xeex. maanaam ma misaal force bi ci sonkoo parce que moom rek la xam. seen mhm. yoon ci Diomaye ah. Mhm. Sonko mooy déranger. Mhm. force bi ma dayale sonkoo ci benn force dayale Bougane ci benn force nga jël leen. boo demee ci wàllu alal Sonko moo ko gën a set wàllu jikko Sonko moo ko gën a set wàllu fit Sonko moo ko ëppale wàllu jaar-jaar Sonko moo ko gën a set. xam-xam xam moo ko ëppale gën ko xam àdduna gën ko muus gën ko baax. Mm-hmm. ma jox révélé ma benn secret xamul tax parce que kuy xeex da nga koy wan nit ñi nga noppalu xam nga dañu ne isa urifa sababu. Mm-hmm. batalal ajab. Mm-hmm. loolu mooy lan benn booy bu ne ci koñ bi di dóor booy yi di dóor ñu ja boo nammee bés boo découvrir secret mhm. jour bi ko booy bi njëkk booy bi koy njëkk dóor keroog lay xam ne du dara maanaam dara bu lay yéemee xamoo lu ko waral mhm. ma joxe misaal ci wàllu jikko man sama misaal parce que ci ci combat lay nekk ah mhm. man dañ ma tëj kaso sàmb semaine matul buggaan dagg li ma doon jox sa salaire waaw man matul semaine laa wala deux semaine mu coupé ko hmm? ci turu lan pour mu wax leen jëmm ji wax rek quoi ngeen noppalu ci moom dama man jooytuwuma de victimisé ma mm, mm, mm, parce que dañu nekk ci combat boo xam ne dafay laaj yuuxu bu bëree nga ne kii mooy diw kii mooy diw ku nekk nga choisir choisir leen diggante Sonko ak Diomaye mm-hmm. Sonko mi nga xam ne salaire am da koy jox doomu aadama yi pour ñu dund ak man mii liggéeyal bugaan dugal ay millions ci boîte vocale am ñu denc ma même pas deux semaines mu dagg sama salaire ñëwul suma kër seet si wu ma waxul ak sama famille waxul ak sama yaay bés bi ma jàppee am na booy bu woote foofu ne oustaz jàppani ko mais seen seen titres yi lu tax tiitaru leen ko am journaliste bi ne non xam nga borom kër gi ni muy demee rek. Hmm. bëgguñu ñu ñu wax sama affaire ci télé wala rajo ñi ci doon jéem a wax tuuti sax da leen bundu xataal ba ñu dem. jëmm jooju mooy wax ak yéen ngeen comprendre ko jëm jooju mooy ñëw télé ba di xeex booy ba ñu koy àtte. il faut ñu xam nga lan la dama bëgg ngeen noppalu ci moom rek yàlla xam na ko parce que xam nga lu tax dafa lu ëpp tuuru. Mhm. yow ma nag ci jikkoom nii ne ci biir de non du dugg ci jikkoom nii ne dama la mhm. ne ay jëf yoo xam ne jëf na ko nii ñëw tele ba simlaay saala nga xeex ak booy ba ñu lay àtte ñaari ba xoolal man man nekk kaso man. Mhm. soo ma seet suul sax nga bàyyi li ma doon jox naa mu dem kii mën na yor réew. mais imam contradiction dafa am démb ci ci li nga wax nii ak moom li mu wax démb. cest à que démb bi muy wax ak taskatu xabaar nee na ba mu nekkee ci gri ba la mu doon xalaat mooy père de famille yi mu war a fay salaire ci ubbiteeb école bii ñu nekk nii. day victimiser wu <laughs> dégg naa ko sax mu naan am na ñu ko woon ko yërëmal doomu muum yi mel ni benn soxna la am bu mu amal ak moom ay doom yeneen doom yi nag yërë cest à dafay dox ci maayanu nit ñi xamul ne dañoo yeewu ba tëddaat hmm. day victimiser wu. baa nga naan yërëmal ni am na ku ko wane ko yërëmal doomu muumi yi moom xanaa amul yeneen doom yu dul doomu muumi ñu war a ànd yëpp yërëm leen loolu laa gis de kon ñëpp doom yëpp la war a yërëm ba pare yaa ngi dégg te nag doomu jàmbur yi nga xam ne yii man am naa waajur lu tax yërëmul sama doom yi bu ñu ma tëjee lu tax yërëmu leen mu ne doom yi nee nañ ko bu ñu waxee loolu am ku ñëw ne ñun dañoo préparer pour ça Bougane kenn du préparer sa doom ci wax lu dëkk sa doom yi bu ñu màggee ba déglu li nga wax Sonko wallahi xaw ma ban âge lañ yor yàlla yàlla yërëm muumi nag soxna su baaxoon la yàlla yàlla yërëm kinne maa ko xamal sama bopp mhm. chaque jour ma seede ko soxna kinne yaay waali yaay muumi kenn gënu ko baax boo toogee moom simla sal nga wax nabi rongo ñu tuuru daf xamu nu ñu xamante dama def émission Sen TV mu gis ma ci benn daara góor gi di wax benn daara ji daa mosoon lakk à l'époque xolom tooy mu woo ma téléphone allo mu ne man la yaay moom mi dama la gis sànq ngay nekk benn émission ci télé daara la nanga ma mu ne jaaral kër ga fii ak une semaine ma jox la yóbbal nga yóbbu ma ñëw mu gaare cette place duy ci ay diw ay diwlin ay chocolat ay pain ay ceeb mu ne ma yóbbul mu teg ci xam nga lu ma def génne waat xaalis ci poosam ne ma comme dama la bàyyiloo sa kër kenn du dem bàyyi këram loxo neen bàyyi lii kër ga nga dem. li ma yëm doomam Mouhamad rakkuwaali la. Mhm. dafa nu sa oto bi bu dawee ba koñ bële na taxaw ndekete booy bi daa bëgg a jëndaat dara dugal ko ci oto bi mën naa am bëggul yaayam xam ko. kooku mooy yaay muumi. kon yàlla yàlla yërëm leen ñoom ñaar te mu épargner doomam li muy def suba du avantage am suba bu booy yeewoo ba gis ne seen pàpp lii la doon yëkkati di ko jëmale ci góor goo xam ne mosul ŋaang wax la lu bon kan ngeen mos a dégg Sonko mu ŋaang wax buggaan lu bon mos ngeen dégg Sonko mu ma wax Macky Sall lu bon mosu ko def Sonko yaay toog ci wetam di wax ci Macky Sall mun la noppil soo bëggee li ma la xam ne laajar Coro laa li ma la wax nii laajal Coro laa nga dem ci watu Sonko ngay wax Macky Sall de moo la naan noppil. malgré adversaire bi mu ko defoon lu ne mu def ko ko xol boobu la leen Sonko mëne lu tax ma dugg fii kundul. dama bëgg wan leen jëmma yi xeex. buñ leen ko wanul ñun dañuy coupable du du ñu du ñu ñii ñii ñoo taxaw seen kanam. koo xam ne kii tey laajal ay correspondant yi nekkoon ci àll bi di ko liggéeyal ni mu leen négliger laajal. boo yi mu doon dagg seen sare ne da ko yóbbu import di wax waa ji kat la moo juuti ba pare dugal ko ci poosam <laughs> ñi nag dañoo juuti def ko ci tëli bi wala école bi ndaw juuti moo juuti ci salaire gaay kii ngeen amal affaire kii mooy génn di bëri wax di victimiser wu di nëmp di nettali n'importe quelle affaire. Hmm. beneen ba gis nga bi ñu tuumalee Sonko affaire Adji Sarr. Hmm. day toog di wax wax ju bon di ko jëmale ci Sonko. Hmm. du ma wax ji kon ni nga ko waxee nañ ko nëbb rek. moom danaan toog di wax ju bon ne Sonko moo def booy bi lu bon teg ko ci ba pare waaye ko nag di xool ban porox ndoolo lay am pour remplacer waa ji yàlla dakaa teel a feeñal sa xool la la yàllay fay bugaan dellu ci sa liggéey nga bàyyi doomu jàmbur loolu laa koy conseillé combat bi doo ko mës réussir mën naa waat ne bés bu maanaam bu bugaan gagné Sonko ci combat mooy ku nekk na dem ci armeel ya nga yóbbaale peel nga suul sa bopp mënu ko réussir kii yaay boo ko soleil bu nekkoon yéen ñaar rek a dina la dóor ba ngay daw <laughs> gëm naa ngeen kese ngeen xaalal nii rek mu dóor la ba ngay daw dafa am ko dox seen diggante dem na enquête nañ ko du wax jamais la ko gars yi wax bu ñu buukalee enquête bi. Hmm. du ko nettali. bugaan kon li mu wax ci kanamu journaliste yi ak. mais non loolu sama mon ami mi wax mu Cheikh kii Touré laa. Cheikh Ousmane mu ne non dafa gagné bataille opinion gagné na ko Cheikh Moussa Cheikh Ousmane gagnéwul bataille opinion ban opinion commençant ci yow yow gëmuloo ko Cheikh Moussa Cheikh Ousmane Ousmane nee na gëmuma ko ñaata nit bugaan kan lay wax nit bugaan kañ lay wax dañ dara nga gëm ko fekk xamuloo ko yow bugaan su la waxee dara nga xamuloo ko yow ñan lay wax sax ñoo koy wax bugaan kan lay déglu ci ay mbokkam kan du déglu kenn kooku ngeen amal affaire mu jóg xamul fu mu jëw bëgg a tàppe ci kaw Sonko Bougane boo bëggee xëy jot réew mi dangay ngay préparer def ni Sonko def yow ñamoo kaso mu nga naan tëdd ci suuf laaj laaj ma man man mi def retour de parquet trois jours. Mhm. mu leer ma ne li ma yóbbu kaso fierté la ma génn ñëpp di tàccu Bougane bu ma génnee kan moo tàccu xam dem kaso mais tëjee Baye Samba. Mhm. waaye tëjee tëjee safetul. kundul mhm. kaso safatul kaso mu ngi safe woon bi fu Macky Sall nekk ñu ne faas ak moom. boobu la kaso safe. tëj léegi du dara moo tax bàyyi leen leen ñu traîner kaso du dara ku ñu tëj léegi du ndam tëj ba ma nga safe woon ca nguur gu dëng ga ngeen bàyyi be combat bi jeex ngeen ñëw di def bu match bi jeexee nii prolongation. Mhm. prolongation xam léeg-léeg am ku may am ci ngeen nekk kaso safeetul kundul. Mhm. kaso mu ngi safe woon nga ne faas ak Macky sàlla mhm. doo ko fi defee mu ree la wala mu tëj la. ngeen génn di sonko sonkoolu <laughs> kaso safeetul ba muy metti la doon xeex ngeen toog fi di ràbb seen pexe yàlla feeñal leen ngeen jóg di tëb di dal ki Sénégalais yëpp kii ngeen amel affaire te du ma wax lépp nag. dinañ ci